waa xam nga ONAC moom société bu am solo la parce que lépp loo xam ne rek ndox moo xam ne euh, ci kaw suuf la nekk muy lakk muy dex yu ndaw yi yëpp mu ngi ci responsabilité boo gisee lac de Guiers bi nga xam ne tey boo xayma ndox mi ñëw Dakar euh, boo jëlee téeméer euh, xaaj yi juróom fukkeel bi yëpp foofu la jóge te kon ndox moom xam nga ca lac ba il mu am ko koy saytu ku protéger ku kuy la fay dugg la lu kon nag société bu am solo euh, te nag euh, couvrir na région yu bari te itam am na projet yu yato yaatu dañu bëgg euh OLAP euh, ni yeneen société yi taxawee mu dënd ak ñun pour que liguey bi ñu canam, ko kanam Sénégal am ci ndam Afrique am ci ndam adina si yëpp gis sen bop ci li nga xamné forum bi mom la parce que ñëpp xam nañ ne ndox luy dox moo koy doxal dund feebar bi ñuy wax sax bu ñu ne nañu ko jéem a moytu dañu naan nañu raxasu nañu nañu set te loolu yëpp ndox moo ko yor kon nag forum bii nga xam ne euh, Sénégal war na ko dalal président bu ko gën a dëgëral war nañoo may occasion ñun Sénégal ñun Afrique ñun àddina si yëpp ñu gën a dooleel ndox ci suñuy priorité pour ëllëg ak si biir euh, képp koo xam ne yitteew nga ko nga mën a am ndox ak assainissement waaye képp koo xam ne rek soxla nga ndox itam pour liggéey ci muy wàllu gàncax ak yeneen nga mën a am ndox moo xam ne danga ko mën a jëriñoo li am solo euh, te muy suñu sas ñun moom mooy ñu fexe ba waajtaay bi li ñu war a waajal yëpp ñu waajal ko ba mu taxaw te ci fànn boobu euh, mën nañoo ne li ëpp solo yëpp fii ñu toll nii dajale nañ ko maanaam mooy lan seet lan mooy lañ war a waxtaanee ci forom bi te loolu def nañ ci jéego yu am solo euh, def communication marketing promotion forom bi gis nga niñ koy doxalee biir Sénégal ak bitim Sénégal euh, fexe itam bërëb yi nga xam ne ñoo war a dalal euh, waxtaanukaay yeeg exposition yi ñu waajal ko loolu aussi ñu ngi ci fexe itam bo

mu ñu doxalee ko noonu maanaam mu nekk forum boo xam ne dana am impact ci suñu économie impact ci suñu tourisme impact yitam ci politique bi ñu bëgg jumale ko kanam pour ndox gën a am doole donc ñu koy seet euh, am nañ yaakaar ne dana mën a am waaye euh, ñu ngi waxtaan itam di seet bu nekkee ne mbas mi nag euh, continuer na am nu mu mel boo war a jafeñal mbir yi looloo itam kilifa yi nga xam ñom ñoo fixé bëss bi ñom ñoy jël euh, seen motuwaay jël décision ya ci war parce que ci biir forum bi amna na wax sommet des chefs d'État et des des des grandes institutions internationales président woté nako ci yeen ci seen bop am nga lu ngeen ci dégg jamono yele dégg ngeen mu mu wax ci ak pap bi euh, Union africaine jël na décision organiser sommet des chefs d'État africains ci biir forum bi kon nak loolu yëpp dimension politique la bo xamné euh wess na suñu responsabilité waye ñun ñu ngi def liñu war dal pour que buñ ko war mu mu jaar ci yoon bi wara war a jaar.